ministre de la santé Ibrahima Sy xam na ne diirub fukki at a ngi nii yoo xamante ni 399 doomu aadama ñu ngi doon fayeku fi nga xamante moo di si ministre de la santé te liggéeyuñ fa lu toll si 746 millions yoo xamante ni nag nee nañu nag dañoo waxoon ne dañ koy dugal si wàllum paludisme bi te xaalis boobu réer ma kenn xamul fan la dugg lu toll si 42 millions yoo xamante ni dañoo waxoon ne kat dañu maam si benn projet boo xamante ni bu nekk foofu sa Kolda lañ waxoon lañ koy dugal si wàllum santé boo xamante dañ si doon faj maire yi ak ñi nga xamante ñoo di euh, xale yi te loolu tamit mën nañ ne kenn xamut fan la jaar di xaalis boo xamante ni nag bu takkoo takkoo takku la. ñu wax ci leneen loo xamante ni ñeel na wàllum élection législative yi nga xamante war na am la 17 novembre 2024 ministre bi nga xamante ni moo yor biir réew mi di ministre intérieur jot ab dogal dogal boobe ñeel li nga xamante ni moo di ndaamaar yu daw si biir réew mi rawatina diggante régions yi ak régions yi lu ko dalee di fukki fan ak juróom-benn bu wi jotee ba dimanche fukki fan ak juroom ñaar bu minuy jotté digënt yoy mën nañ né benn ndamar du fi daw rawatina sax ndaamaar yi nga xamante ñoy transporter nit ñi diggante région agression nak lañu wax bu fekkee nag ndamar yi nga xamante ni manam moy sapeur pompier wala melni police wala ambulance yoy nak may neen nañ leen ñu daw ah, wala sax ndamar yi nga xamante ni si ministre intérieur lañu aju wala sax yi nga xamante ni gouverneur kat mo xaatim ab kayit may leen digël ñu daal di daw ci diggante yoy bu dul yooyu nag mën nañ ne mayuñ benn oote mu daal di circuler si diggante régions yi ak régions yi diggante waxtu yi nga xamante ni wax nañ ko dimanche no samedi le 16 bu minuit jotee bala dimanche le 17 bu minuit jotee.